salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa jaspora waa vidéo bi ñuy defaat tey dañ koy defaat rek adressé waa directement au président ci nofrage bi nga xamante ni am na fi di ko jaale sénégalais yi di ko jaale sunu frère gambien yi aussi nga xam ay doomu ndey lañu benn dëkk la peut-être que tubaab yi ñoo ñu diviser rek. man ma jàpp ni moom les frontières moom sont fictives quoi parce que ñun ay frères lañu ay sœurs lañu ñoo bokk lépp waaw mu nekk nag loo xamante ni vraiment dañuy amaat toujours rek déception ci suñu président bi ñu yow parce que bu fekkente ne da nga nekk un jeune président cette jeunesse nga xamante ni ñooy espoiru dema bi jusqu'à présent ñuy jël ay bateau di génn réew mi. heure bi waroon fekk sénégalais yi sax di préparer wu en conséquence pour retourner waat au pays ci xéewal yi sunu ressources naturelles yi nga xamante ni yàlla jox nañu ko heure bi waroon fekk état bi moom intérêt mi war a nekk intére de tous les sénégalais xool nu muy def ba jeunesse am bi nga xamante ni Europe li mu ñàkk moom la Afrique am muy ay ndaw Europe a ngi def lu tout pour fexe di xëcc nu ñuy xëccee ndaw ñi parce que ay mag lañu am dem nañ ba ci biir aussi xool nañ ni. comme ñoom bëgg nañ suñuy ressources naturelles mais bëgguñu ñu ñun donc ay machine mais xam nañ ni machine mënul def lépp mais ñu yor ay chef d'état yoo xamante ni seen bopp moo leen fi nekk ak seen njaboot un président bu mel ni un président Macky Sall lu cas bu mel ne mu waru ko jël au sérieux tàppe nag sur la table taxaw nag ci xool nan lay def ba ndawam yi mais un président jeune boo xamante ni amoo mayoo benn chance chez jeunesse pour ñu gis la nga waxanteeg ñoom c'est tout temps problème di tëju di voyager voyage yoo xam amulul Sénégal benn intéret heure bi waroon la fekk au moins nga yi ngeen di collaborer sa jeunesse ubbil leen di dem ci ñoom di wàcc sur le terrain di dugg ci école yi di dugg ci marché yi di xam Sénégal li fi ne xam nga ko sax nga gën ko xam xam ne li nga doon wax ak ñoom amul di ko wax di di masoo sunu frère euh, gi Marius Sagna mu nekk loo xamante ni ni ni ñuy amee lu dal ni Coupe d'Afrique Sénégal mën a je ne sais pas na wala kii na ñu ñëw di manifester wu ba ci buntu pale bi mais loolu droit boobu la am moom parce que aussi mënuñu ñun askan wi ñu war a yërëm heure bi waroon fekk lu doon cher dafa war a yomb ngeen wax ñu ko aussi yow am personne nga wax ñu ñu délestage yu am prix yi da ngay xool dañ koy wàcce mais ñu dem ba ci biir nga war ko yokk te Sénégalais yi mayu leen possibilité bu ñuy fayee courant amuñu ko dañuy taqale mais bu ñëwee ba ci grid grid bi loolu c'est rien grid bi ñun ñoo pale ñun ñoo la fa dugal un war na mën a ñëw taxaw marché pacifiquement taxaw wax la foog nga mën di accepter les Sénégalais parce que li ñu waxoon ak li ngay def ça fait deux kon foofu ngay nangu su critique yi parce que euh, noo fi nekk éternellement président nga te dañ la fi fal. donc ni ñu lay taxawee ñu lay tàccu noonu lañ lay wa noonu lañ lay waxee non mais mënoo aussi tamit sénégalais bu jóg nga bëgg a taxaw di napp les sénégalais mais sénégalais yi aussi ñu bëgg a croiser les bras Guy Marius Sagna li muy kaas noonu kaasu ko pour son propre intérêt mën na fay courant mais sénégalais yi aussi nit day ñëw di leen xeexal nekk ci jafe-jafe bu ñu leen woowee du ñu génn ba pare bëgg dëkk bi dox dëkk mënul benn dëkk du dox français ngi nii les gilets yi dañuy génn. bu ñu augmenter benn affaire rek ñu génn wane seen bopp parce que dëkk bi foofu la ñu toll ci démocratie ñu wan ni ñii ñun ñoo leen fal lu ñu ay buur état la mënoon nag aussi état di def lu ko neex teg ko ci fan bu dee ci dañuy dem ci député yi député yoo xamante ni majorité bi moo leen fa teg lu ñu lu mu teg ñu voté ko xooluñu benn intérêt boo xamante ni askan wi ci la ñu dox opposition bi ñoo koy xeex te benn minorité minorité lañ fa donc mu nekk loo xam ne kon sénégalais yi seen bopp ñoo war a jël combat bi. xam ni du lu nga xamante ne dañuy toog di croiser les bras dañuy wàcc sur le terrain di wax ak état bi fi nekk parce que ñii du ñoom ñooy taxaw parce que dañuy pro état boo xamante ni nguur ñi fi nekk ay ministres yoo xamante ni ña détournement député yoo xamante ni lu ne mais sénégalais yi war a toog di leen bàyyi ñoom ñuy continuer di def lu leen neex mais yow ku toll ni Macky Sall naufrage ci fii ñu toll nii nga xamante ni xale yi nga xamante ni ñooy espoiru demain adduna bi ndaw la ñu soxla. yow say ndaw chaque jour que jafe ñu ngi génn amul lenn loo fi tegal sénégalais yi loo xamante ne dalal na seen xel yàlla dëkk bu yàlla may ay ressource naturelles préparé wu nga en conséquence yow en tant que le président yaa waroon wàcc sur le terrain di ko wax di communiquer ak sénégalais di leen xamal suba Sénégal ci phase bu ñuy dugg mais da nga ñu nëbb ñu lépp ah nëbb lépp sénégalais comme si ñun yàlla joxuñu benn ressource naturelle te lépp nekk biir Sénégal. te ba léegi mayoo sénégalais espoir wan leen ni leen dëkk bi suba nii lay demee mais buñ nee nii nga ni tegal ñu ay train yu ma xamul ay train ay nit moo ciy dugg train bi joxuñu ko gratuite da ngay paas fa fi nga yóbbu train bi nit bu fa amul activité du fa dem nga fexe gëstuwaat askan wi gëstu askan wi parce que train yeeg yi ngay jël di ko leb ci au nom des sénégalais ëllëg ñoo ñun ñoo koy subir kon am nañ droit ñu wax ci suñu grain de sel réew mi metti metti boo xamante ni. adduna bi nit ñi ñu ngi xool di xool technologie bi ni mu avancé nga mën a xiir sa jeunesse ci loolu di wax ak ñoom di wàcc sur le terrain mais toog fi nga toog kenn du la gis ngay napp sénégalais doo wax ak ñoom mais loolu ban fan lañ toll ci mille 2019 bi nit ñi dañu am seen liberté di la expliquer parce que yaa taxaw laaj ñu suñu carte ni ñu lii ak lii dinaa ko def te li ñu wax dara defoo ko ci kon seen normal que sénégalais ji la ko rappelé ni la rappelé ni la monsieur le président li ñu waxoon du lii mënuñu aussi sa famille nga leen di jël di am kan moo ci yoon ministère boo xamante ni deux milliards la trois mille ay ñaatam milliards la ñuy gérer ci ministère yi sa rakk ñu dugal ko ci problème yoo xamante ni yow da nga ñëw doog du bokk ci affaire yi mais donc ñun mënuñu tamit nga ñuy def lu la neex ba pare ku wax nga ni da nga ko da ngay menacer sénégalais yi waa SDE ay sénégalais lañu bu ñu amee problème da ngay woon nit ñi tout le monde autour de la table wax ak sénégalais dëkk yi avancé du ñu xool seen population bi di ñàkk ay père de famille lañu ay responsable lañu war nga mën a woon nit ñi wax ak ñoom parce que ay sénégalais lañ am nañ droit mais toujours intérêt yi intérêt intérêt multinational yi moo fi ne te tubaab yi yii ñuy def Sénégal ñemewuñ ko def seen dëkk technologie bi nii mu avancé war nañu toog ba am yenn côté yoo xam boo fa demee doo am réseau nga jël orange jox leen affaire yi. mais Sénégal gi war a toll àdduna ci boppam moo dépassé fii ñu toll ñun ñu bëgg a téye Afrique comme benn te africain yi yeewu yeewu xam àdduna ni muy doxee xam ni nax yi ngeen di def nii du loolu mooy doxal dëkk lii doxalul dëkk mais may sénégalais yi seen droit ñuy wax bu fekkente ne ci wàllu journalisme am ci ñoo xamante ne des corrompus nga xool ay médecins yu jàng honnêtement toog fi ñu toog mën liggéey amuñu benn possibilité. nga xool ci éducation bi la même chose côté bu nekk foo ci laan nit ñaa ngi kii nga nekk un jeune président war a wax ak sénégalais yi te jusqu'à présent taxawagoo pour jël affaire yi au sérieux taxawagoo pour jël affaire yi au sérieux teg fi projet yoo xamante ne chez jeunesse ci boppam day am espoir parce que dem bi kuy dem dafa am loo soxla nga xam ni kon ay jeunes jeunesse bi nga yor nii dafa nekk jeunesse boo xam am na ci ay goro yoo xam ne bëgg nañu faj seen soxla. mais amuñu possibilité bi moo leen di waral ñuy sacrifier seen bopp mais loolu war na la pousser à nga mën a taxaw xam ni liggéey réew mi dafa jot li ngay politique ak discours yu rafet yi ngay def te dara doo ko ci réaliser amul sens loolu la ñuy soxla ci yow que ni il nga mën a jëlaat réew mi au sérieux di di la wax ni la nga libéré Guy Marius Sagna sénégalais yi faw ñuy manifester parce que li nga waxoon sénégalais yi defoo ko kon faw ñuy génn di la ko wax faw ñuy ñëw di la ko rappeler. di la rappeler loolu di la rappeler ne monsieur le président li ñu waxoon dara lu ci am amul banlieue bi boo fa demee ñu ngi nii xoolal fi terre bi jaar ba léegi échangeur amu fa nit ñi di nekk sécurité zéro lumière zéro dëkk bu mel noonu yow lan nga ñuy mën a expliquer di fooy wax discours yi ngay def mel ni yaa ngi wax ak Sénégal bii lépp naaj te dara taxawu fi côté boo ci laal mu ngi sooxe lan nga bëgg. foofu foofu Sénégalais yi génn nañu génn manifesté wu nag rappelé ko parce que dëkk yi nga xamante ni ñooy génn di wax ak seen nguur gënuñu ñu nañuy génn di ko xamal ni ko li ñu waxoon du lii ba moom buy jëlee ci décision prochaine fois dina sóoraale ni Sénégalais ñu ngi koy bàyyi xel mais bu fekkee décision bu mu jël après mu jàll ni inaperçu mais kon c'est yaa ko ñoo koy may droit boobu te ñu jëlaat réew mi xam ni réew mi du waaso du dara ñun ñëpp ay sénégalais lañu. bu fi nekkee bu jóge fi du tey kenn ànd ak moom fi mu jëm kon ñun ñoo moom Sénégal ñoo fiy toog suñu ay doom ñooy toog ñooy souffrir kon nañu booloo aussi taxaw face ak état bi xamal leen ni leen noo fii ñu bëgg Sénégal jëm fi yoon bi du fii waaw jërë ngeen jëf di wax aussi la combat continue